بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi fiinil أدار يا الله سفي بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala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 di siyaare mbooleem seexi Serigne Touba yëpp di jaajëfal euh, bokki téléspectateur yu Lamp Fall TV yi nga xam ne ñoo ngi topp ci seen émission bi de ëttu murit te ñu di ko amal dibeer ju jot bu fukki waxtu jotee ci guddi ngeen jàkkaarloo ci wàllu machine ci micro bi seen bokkum taalibe Fallou Galass Syll ci wàllu machine bi ñu jàkkaarloo ak Serigne Mbacké Seye mbokk ñoo am mbégte jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci émission yu weesu tey jii nag ñu ñëwaat ci lenn ci daara yi eh, nit yàlla yi lenn ci daara yi njabootu Serigne tuba eh, di daara yi Cheikh Mouhamadul Bassir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mbokk yi xam ngeen fan yi weesu yéen a ngi doon topp ci ay daara yoo xam ne yu muy la ngir dafa liggéeyal lislaam lu mel ne daara yi eh, Taysirul Asir mu nekk ca puut Eh, ngeen gis liggéey bu rëy bam fay liggéey waaye lu mel ne daaray Hisnul Abraar mu nekk ca Thiel moom it ngeen gis naal yu rëy yam fa naal eh, tey jii nag ñoo ngi ci daara yi nga xam ne ci mu njëkk a naal la bokk yi mu njëkk a sos la bokk mu daaray tubaa Mouré di tubaa Buqahatul Mubarak Touba Mouré eh, Buqahatul Mubarak ku ne xam na ne moo doon pàkk ba Serigne tubaa nekkoon ca njaareem moom la ñu duppee daara ji nga xam ne moo nekk ci Touba Mouré di Bokhatul Moubarak euh, incha allah dana ñëw ci wàllu sosug daara ji ak la ci aju waaye muy daara yoo xam ne ci daa Cheikh Mamadou Bassir njëkk a taxawal la bokk ngir tout tànk yi nga xam ne ñoo ngi koy jox mu mën a njëkkanteeg ñoom ci àdduna def ci ñoom seenub dënn alquranul karim euh, def ci itam xam-xam boo xam ne moo leen di xàmmeel ñu mën a jaamu borom bi subhaanahu wa taala ca teg ko ci farata te xàmmee sunna euh, ñu bokk nag tey jii ak sëriñ daara bi ne ci sama loxol càmmooñ di Cheikh Mamadou Bachir mbay ma feggoo ci sama ndijoor alhaaji Fallou Ndiaye di jëwriñu daara ji euh, ñu fas yéene seq ay jataay ñun ñaar ci ay laaj ak ay tontu incha allahu rabbi euh, xam naa ngir njëkkante ak waxtu wi damay bàyyee sëriñ Basiiru mu nuyoo suñu nuyoo ba noppi nag comme moo yor wàllu njàngale mi ñu ànd ak moom ci laaj yi ak tontu yi ci daara yi ji nga xam ne eh, moom la Cheikh Mamadou Basir taxawal fii ci Buqaatul Mubaarak Touba Mouré mu nekk ci wetu Koloban saalum dégganteem ak Xelkom. sëñ Basiru kon eh, sama laaj bu njëkk mooy yow eh, fan nga jàng alxuraan ak kañ nga tàbbi ci njàngum alxuraan ak lu la boole ak Cheikh Mamadou Basir. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara eh, di jiital sunu nuyoo Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko lool. Eh, di ñaanal borom pàkk bi it Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir suñu borom yàggal ko fi te wéral ko am mu ay naanam ay naalam yëpp barkeb Cheikhul Khadim. Eh, jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Fadil. Eh, ñu ngi am mbégte bu baax ci laaj bi eh, ba nu matee dem daara sunu waajur dañoo jël jox ñu sunu baay buñ naan sëriñ Aly Mbaye eh, doxal nañ fa sunu njàng alxuraan lu bari waaye nag bañ fay jógee eggul jaar nañ dëkk buñ naan jaabi ci njàng nun lañ doxee ba tàbbi ci loxol sëriñ Saliou Eh, ba yàlla dogal ñu bindub kaamil eh, ñu am xemmim def ak bëgg-bëgg ci alxuraan ngir suñu maam ak suñuy waajur ci la eh, ñu nekkoon ñu ñu nit ñu juddu xam ne loolu mooy suñ ndono ñu nekk ca jaar naa barab yu bari di jàngale fu mel ne Longoor ci Sëriñ Bay Longoor ak daaray Serigne bashiru moom Cheikh Mamadou Fadil jaar naa fa ci njàngam alxuraan njàngam xam-xam tamit ak di jàngale alxuraan eh, waaye nag li ma booleeg Serigne xam ne eh, soxla na ab jàngalekat man it mën naa jàngale eh, te it ma am xemmemteef ak bëgg-bëgg liggéeyal ko ngir taxawaayam ci yoonu ci yoonu murid xam naa ne it Euh, bu ko mënoon it day toog jàngale waaye loola ay itteem mënu ko euh, man it ma am xemmem defu wuutu ko ci loola euh, ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa waaw loolu daal moo booleeg moom ci. ci yenn jamono nga ci loxoom ci daara ji ko yor. daara ji nag xañ na yàggut 2020 laa fi ñëw waaw lu jiit loolu nag am na yeneen jàngalekat yu fi jaar ba egsi ci man. waaye diggante 2020 ak léegi daal maa ngi fi. Hmm. ndax mënoon nañoo xam bi nga fi ñëwee ñaata dong nga fekk ak ban programme nga fi indaalee pour jàngale. waaw ba ma fi ñëw nag euh, fekk naa fi lu mat euh, fukki donga ak juróom-ñett euh, programme bi may jàngale nag moom bu may bu ñu yewoo fajar dinañ jàng seeni bind tari ko ku ci tari rek wàcc. Eh, ku ci wàcc noppalu ba noofeer nga duggaat jàng sa wet saa soo ko taree it dem bind eh, bind bi nga eh, jàngoon démb ci ngoon ak tey suba gi dem jàng sa bindu xasida tari ko waajal añ bu ngoonee it ñu duggaat ñi xaw a sori jàng seeni nafar ñu soreegul loolu yeneen bind tari ko waaye seen bind yi ñu ci fajar gi guddi gi lañ ko doxaloon Euh, doxal ko ba miin ko euh, buñ noddee gee ñu wàcc dem yëkkati ci xasida nga xam ne chaque jour loolu nun lañ koy def amul benn bis buñ koy jëlal nun lañ koy euh, doxee ci programme daara ji 2020 dafa mel ne bi nga fi ñëw fukki donga ak wala yu mel ne waaw fi mu toll tamit xam daara ji ñaata donga fi ne. waaw fi mu ne moom dem na ci juróom fukki donga yaakaar naa ak lu teg waaw dem na dem na ci lim boobu fi toll nii waaw. ndax danañ yalwaan. Eh, ñoom nag duñ yalwaan seenu dund ak eh, lépp mi ci biir daara ji la leen fekk. yan taxawaay lañ mën a ràññi ne ci njàngale mi bi nga dikkee yow en tant que jàngalekat fekk nga Cheikh Mamadou si di ko taxawee ci daara ji nga xam ne motivé na la pour yow nga mën a ni ànd ak moom. waaw fekk naa fi eh, yar bi nga xam ne moom la mag ñi doon yar ñu gën cee ràññee ku mel ne Serigne Saliou mooy yar ba mu doon yar di ci tarbiya ndaw ñi. muy ci alxuraan ak liggéey ak ak jàng xasida xam ne ñett yuy lañu boole it ci daara ji te moom la ñu continuer ba tey loolu lañ fiy doxal. Hmm. ndax eh, am na xale yu mokkalaguñ ci say loxo wala wala sori nañ. waaw bari na ñu sori nag waaye diiru ma fi nekk léegi moom kenn mokkaleegu fi hmm. waaw xëy na lu jiitu ma fi ñëw nag nañu fi mokkale waaye diiru ma fi nekk léegi daal kenn tareegu fi. jërëjëf euh, sëñ Bassirou yaakaar naa ne bokk yi ñoo ko di jot a dégg mu mel ne fii moom 2020 la fi ne 21 22 mel ne kon ñaari at yu manqué tuuti la fi amagun wala at yu tegal bi mu ñëwee dégg ngeen ci biir wax ji mel na ne fukki dong ak juróom-ñett la fekk waaye daara ji léegi dem na ci juróom fukki dong yu tegal yoo xam ne ay tuut tànk lañ ñoom ñëpp la ci jàng alxuraan bu ñu xëyee moo leen di jàngal ci fajar gi bu ñu jàngee dem tari ko seen bind bu naajee ñu dem jàngi seen bind bu bëccëgee ñu xewlu añ bu ngoonee ñu jàngiwaat seen bind wala naf jàng seeni nafar bu guddee boole ko bindu xasida bëggoon na maa xam ci yéen xasida yi eh, da ngeen am xasida yoo xam ne moom ngeen taamu di ko jàngal di ko mokkal wa ilaa da di jot xasida gu ngeen jot rek jàng. waaw am na xasida yu ñu gën a taamu di ko mokkal waaye li ci ëpp nag eh, dogooguñ ci yan xasida lañ war a mokkal waaye xam naa sas bi nga xam ne moom lañ miinoon ci daara Serigne Saliou rek moom lañ do moom lañu bëgg doxal fii. ki yor programme euh, njàngalam xasida mi sëriñ Fallou Bala waaw moom it am na ci taxawaay bu am solo saa su gën a wàccee ci bind jàng seen alxuraan ci moom la ñu dem mu doxal leen seen bind xasida waaw. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Bachirou sëñ Fallou Ndiaye yow yaay ki nga xamante ne bii daara ji ba ma sosoo ak léegi yaa fi jëkk euh, mbëggoon a ñëw rek ci taarixu daara ji daara ji kañ la ko Cheikh Mamadou Basir sanc ak bi ko sancee ci yan condition la ko sancee ak taxawaay ba boobaak léegi ndax dafa judduwaale daaray alquran wala dafa njëkk a nekk daaray tërbiya ba mu yàgg daaray alquran ne ci waaye bëggoon nañoo xam daal sosug daara ji ak ni ko Cheikh Matul Basir sosee. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh waa LAMP ñu ngi leen di nuyu LAMP TV LAMP FM ñu ngi leen nuyu euh, euh, di am mbégte lool ci dalal gi leen dalal fii ci daaray euh, Cheikh Mouhamadul Bachir ci alboqatul mubaarak gi ñu toog eh, ci biir kër gi di am mbégte lool ci toog eh, jàkkaarlook sama turandoo sëñ si la eh, mu nekk jataay bu xamante ne jataay bu am solo la gannaaw bi ñuy ñaanalee suñu wasila Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér te mu mat a ñaanal lool ndax yéen bi diis na te mu nekk koo xamante ne jàmbaar la ku ànd ak moom war nga gën a góorgóorlu te gën a yokk sa pas-pas te yaakaar naa ñi fi nekk it xam nañ loolu euh, su ma dellusee ci euh, sablaaj euh, yaa ngi bëgg xam kañ lañ sos daara ji ak daara ji biñ koy sos nañ lañ ko sosee daara ji biñ koy sos ñu ngi ko sos ci 2002 2002 la sëñ bi sos daara ji bi mu ko sosee itam man mii la fi njëkk a indi fii bi mu koy sanc itam am na ci ndigalu sëriñ Saaliwu ndax bi mu demee ci moom mu xamal kon dafa war a sanc daara sëñ bi moo ko xamal ne ko boo demee ca dëkk ba na nga fare ca côté gànnaar ga moo ko wax waaw natt moo am na natt bu mu nattoon xaw juróom fukki mètre xaw ma am na yu mu ko waxoon daal waaye loola natt boobu man mi la ko sëñ bi woo man la ko natt loo maag seexu naa mi ñoo ànd natt ko biñ ko nattee biñ biñ nattee biñ nattee euh, fii bu agsi ñaari mbir yoo xamante ne kéemtaan la ci taamu woon nañ ko ci mooy bu jegee ca daa euh, ci dëkk bi di natt jëm si fii bàgg ci xóot-xóot bàgg see ci xóot-xóot mooy mooy daara ja su fekkee ñëw na ci ngi gis mooy daara ja. bàgg ci xóot-xóot wala ngi gis. mooy daara ja bu amee lim boobu. bu amee lim boobu mooy daara ji loolu baatin la biñ ko nattee ñëw xóot-xóot bi fii la nekk gis xóot-xóot baa ngi ba léegi boo xoolee kër gi moo ci gën a xóot mm-hmm. waaye ngi gis bi dañ ko fee fekk. nga xam ne sëñ bi biñ ko bi mu ñëwee bañ ko ko leerale ba mu gis ngis gi alhamdulilah la njëkk wax mm-hmm. sant yàlla waaw kon mu nekk loo xamante ne du hasard nekkul rek daa xool sañ ci waaye ab tegtal la boo xam ne da koo moom. bàyyi ko ci doomi Sëñ jeex na. Mhm. mu mu ñëw léegi nag bi ñu sancee noonu continuer. lu ngeen njëkk a def ñu fi njëkk def maanaam sàkket lañ fi njëkk a def. sàkketu gattax. noor boobu loolu boobu bi ñu génn la ko dañoo fari gattax mhm. di sàkket gannaaw gi dañ koo làkkoon li ñuy wax dóor dóor làkk. Mhm. ngeer lañ koy defee moom lañ ko defoon sëñ bi def benn néegam. moom itam nekk nga xam ne ci néegu ñax boobu suñu mësaa ñëw ci néeg boobu la daan fanaan waaw néegu ñax kër gi di sàkkit di sàkkit benn wanoog rek lañ fi tabaxoon muy wanoogu ñaaru sangukaay ak euh, benn wanoog nga xam ne moom la fi defoon amul leneen néegu ñax moo fi nekk suñu bu ñëwee ci lay ci lay nekk ñun nii néegu ñax la ñuy nekk kon yaakaar naa ak nii daara ji mel yaakaar naa xëyut mel nii boo ko xoolee 2002 ba léegi yaakaar naa war naa dem vingt ans. ñaar fukki at kon kon yàgg na. waaw mu doon loo xam ne daal lu am solo la. jërëjëf sëñ Fallou euh, ndax bi ngeen fi ñëw dëkk bi ñëpp ay murit lañ dañoo loon seex Bass di ko fekk si bëggoon na maa xam daal dundinu Cheikh Bass ak waa waa tund wi waa tund waaw sëñ Fallou loolu itam boo ma ci laajee danaa ci am mbégte ndax ñun ñi fi nekk yaakaar naa ne dëkkandoo lu ci rafet ñun ñu fi nekk ñoo ko njëkk a yëg te sëñ bi amul murit amut tiijaan amut pël amut séeréer amut ñëpp ko nangul ñëpp ko ànd bëgg lépp loo xam ne soxla na ko xanaa ñàkk ko yëg waaye buñ ko yëgee ñoom ñëpp kenn du des aw bañ nañ ko ba dañ ko mu defal toolu àllarba toolu àllarba boobu bokkut ak toolam toolu àllarba bi pël dana ci ñëw séeréer dana ci ñëw um, uh, tijaan dana ci ñëw murit dana ci ñëw mënoo xam murit yeeg ñëpp ko ànd def ko muy seen kilifa ñu nangul ko ba noppi topp ci gannaaw loolu moom lu wér la moom waaw Eh, jërëjëf sëñ Fallou eh, ba tey rek ñu wéy yow ànd ak yow ci laaj yi ak tontu yi fii ci daara yi Bokhatul Moubarak Mouré ndax mënoon nañoo xam eh, ñaata sëñ daara ñoo fi jaar ak li fi jaaroon ci ay ay dongo ndax mel na ne lu bari jaar na fi ci ay dongo ay daara. waaw loolu it sëñ Fallou am na ñu bari ñoo xam ne jaar nañ fi maanaam sëñ daara yi boo ko dee xool war naa toll ci juróom benn wala juróom ñaar ndax ku ñuy wax Moustapha Mbacke moo fi njëkk a jaar ak ku ñuy wax sëñ Saliou Ñing am na ku ñuy wax sëñ Alsaan Fay am na ku ñuy wax sëñ Cheikh Ndiaye am na ku ñuy wax sëñ Saal Bousso am na ku ñuy wax euh, euh, des des na kenn am na kenn waaw sëñ Alsaan Fay waaw ak sëñ Basiir yaakaar naa juróom-benn la xaw ma juróom-ñaar war nañoo toll foofu ñoom itam kenn ku ci ne boo ñëwee bay nga sa def nga li nga war a def kenn ku ci ne xanaa yàlla li yàlla di dogal kenn ku ne foo nekk saw ñam bu jeexee nga jóge fa waaye amul kenn koo xam da nga fee nekk bu am looy xebat bu tax nga dem loolu moom mos fi am. sëñ bi kenn ku ci ne ni mu war a àndee yow la àndee yow lim ni mu war a taxawee ci sa mbir la taxawee sa mbir njàngale nag mooy loo xam nit ki day jàng bu yàgg mu dem ba yàgg mu bàyyi dem ci leneen waaye moom amut benn jafe bu dee ci dongoy tër bi itam wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi góorgóorlu jàmbaar lañ mbooloo la it dañoo tasaaroo ni ñu bëree ba ñoo dem xëy na émission bi da leen a bett waaye kon dama leen doon dajale ñu bokk toog ñuy dégg waxtu nga leen di gis di leen laaj nga xam ne ñoom ñoo yor tool ñoo koy liggéey ma ne la ci juróomi bërigo la tàmbalee woon tey dix tonnes lay ji. dix tonnes moom lay ji. da ko bay fii daañu ko bay mure gii. Hmm. tracteur yaa nga ne ay nag la yoroon nag yooyu li tax mu dindi ko gis na ne nag yi ay nag tiir mën na ànd ci gét ndax nagi tiir boo ko boolee ci gét dañuy damm nag yi wala ñu gaañ leen dongo yi ñoo jël nag yi di leen sàmm te daa bëgg dongo yi am xam-xam comme daa bëgg ñu jàng nag loolu moo tax ñu dindi nag yi jël tracteur yi bàyyi dongo yi ñuy jàng nga xam ne bu nawet bi jeexee amut kenn lu lay tardé ci mu jàng soo xëyee yaa ngi jàng bu ngoonee yaa ngi jàng waaw di yàq seenum njàng moom loolu moom dindi na ko moo tax mu ne nan waaw nañ dindi nag yi ñu jël tracteur yi di ko béyee loolu daal mooy li nga xamante ne mooy euh, ci li ñu nekk dugub ji itam ba mu fi tàmbalee bay ba léegi itam 2002 ba léegi sëriñ Bassirou mosuma koo gis mu dara dara lu jóge ci mbay mi mu jaay ko mu dem fenn fudut ci sëriñ tuuba lépp da ko joxe gerte googu ma lay wax su ñoree lépp noonu la koy boole ñu dajale ko jaay ko dajale xaalis bi ak ak dugub jeeg yëpp dem joxe ko amul ci lenn loo xam ne suñu bas dana ko jël di ko dugal ci daal di ko jox dong wala mu di ko jox kenn loolu it moom mën naa ko seet boñ fi nekkee léegi ñaar fukki at yi fi nekk yëpp sëñ Basiru am mbayam mosuko da jaar ci loxoom lu mu ci mës a dëkk bañ na ci loo xam sax dama daan wax teel ma ko nga xam ne day xaalis bi damay wax téye ko te day bañ xaalis bi sax jaawaloo maanaam nga téye ko nit ñëw ne nangam nga dindi ca mu delloo si waat la déedéet xaalis bi nga jaayee dugub ñu gerte gi wala ji ñu jox la ko xaalis boobu ngay téye dem ba yóbbu ko jébbale ko. nga xam ne bëggul du sensé. waaw loolu moom noonu la koy doxale waaw yaakaar naa loolu. Euh, jërëjëf euh, sëñ Fallou loolu leer na waaye danaa desuwaat ci yow damay dem rek ci sëñ fallu Ba euh, bu fekkee ne agsi na waaw sëñ Fallou Ba sëñ Fallou daal mel na yow wax nañ ne yaa yor mbirum njàngale xasida mi yaa yor xasida bi bëggoon nañoo xam gone yi seen programme njàngum xasida yan waxtu lay doon ak yan bis eh, ni ñuy jàng xasida yi yan xasida moo ëpp ci yi ñuy jàng ak waxtuy kuréel yi wan yan waxtu lay doon ak yan daaj ngeen di daaj. maa ngi nuyu mbokk taalibe yi fi nekk yëpp di rafetlu lii lool ndax de ni ma jàppee daa dañoo bëgg a tasaare liggéeyam Sëñ Tuubaa rek ndax xam naa ngi bàyyi seen yitte yëpp ak fii ni mu naqaree ñëw ngeen ngeen fii ngir bëgg a feeñal liggéey bi fii sëñ bi liggéey loolu yàlla na suñ borom fay. waaw ah, bu dee xale yi de moom ak xasaay di ni ñu koy dundee ñoom de daanaka ñoom ko gën a bëgg si ñoom ñii ñoom ñu ñoom ñu ma ñoom ñu koy àndal ñoom gën a bëgg waaye ñu bëgg nag soo boole bëgg yëpp sëñ bee ñu ko gën a bëgg ndax sëñ moom daanaxa man damaa newoon téyër sax ba tàmbali am naa place ba tàmbali mën a ñëw ba ba tolloon fu sori si si métier bi waaye suñu borom dimbale ma. ba mu wëlbatikuwaat ba ma bàyyi yëpp ñëw di tat biwu waaw bi mu ñëwee li mu njëkk wax mooy jublu si xasida yi rek la ma wax te baatam boobu moom laa laa def sama kéem laay kàttan nekk saa su nekk waaw bi ñëwee tamit maa si xale xale yi ak ku mel ni suñu Moussa Diouf suñu Moussa Diouf moom la ma suñu njëkk a boole si xasaay di di nongop Serigne Saliou ba Serigne Saliou yeewu ko daan jàngal Serigne Saliou moom laa daan nekk si ginnaawam jamono ji nag dafa nekk kees sa moo tax mooy mooy mooy jëwriñ bi yëpp si xasaayit bi waaye xale yi ñoom seen ak bëgg daanaka suur yëpp lu ñuy répété amuñ duñ noppal benn jour suur yëpp duñ guddee wàcc seen sëriñ bi jàngal alxuraan sama mën na kaa sédd duñu guddee wàcc guddee wàcc bala ñoo reer dinañ sikkar yëkkati xasaayit xasaayit ñoo ngi répété li gën a sëñ bi li mu gën a bëgg moom la ñuy gën a jublu muy sëñ Cissé sëñ bi sëñ moom daanaka ah, daanaka daanaka air e, yi ko gën a neex yëpp air sëñ Cissé la waaw soo xoolee suñu programme yaa mukrima sëñ Cissé lañ nekk ak yaa xayra sëñ Cissé ak ahbab sëñ Masamba premier daaj bi ak deuxième daaj bi ak yasturu daaju dëbbi te tamit du ko bëgg la mi daal di dëbbi bi ndongo yi moom moom la ñuy royloo sax waa kër sëñ Saliou moo tax si lañ nekk gut nekk si yaa xayra ak yaa mukrima bëgg a ngeen ñaan ñu suñ ah, ngeen ñaan ah, fañ bëgg a egg di jàng ay rum naa bi nga xam ne moom la gën a bëgg si xasaay di ay karam naa ay miimiya loolu laa lañ am yéene egg foofu ak yi di ko jàng te duñ ko xool loolu loolu loolu lañ bëgg nga xam ne suñu saali moom la daan tàggat nit ñëpp bañ bañ daan def noonu ñun daal bëgg-bëgg boobu lañu am rek waaw. noo tudd. Bas. Bas nan. Kunde. ah Bas Ndiaye. Bas Ndiaye kuñ tuddee. sëñ Bas. sëñ Bas la ñuy tuddee. nu sa baay tudd. Sall Ndiaye. Sall Ndiaye. Ah. sa yaay. Aji Kumba. daara ji neex naa neex na. feeg Mboro fa la dàqal. feeg Mboro fa la dàqal. fii fii moo la dàqal lu tax. yaa ngi jàng alxuraan ban saar nga ma mën a taril. taril ma dégg. للرحمن والعاديات دبا في المريح غدان والمقيرات سواء فصلنا به النقم فوصلنا به جمع إن الإنسان ربي لكن وإنه على سهل لسيده وإنه اليوم بالخير لسجد أفلا يعلم إذا وصل في القبور وأنزل من الصدور إن ربه به يومئذ الخبير jërëjëf Cheikh Ahmadoul Basir waaye suñ bi noo tudd. Cheikhouna Gaye. Cheikhouna Gaye. kuy sa baay. Jili Gaye. Jili Gaye foo dëkk. Tundóoli. kuy sa yaay. Ndéelé. kañ nga ñëw ci daara ji. man naa fi de. foo toll ci alxuraan. yaa ngi si na am goo kon. waaye li nga weesu nag. xam mokkal naa si. li nga weesu mokkal na lu bari. kon xëy na boo wàccee benn yoon danga nga mokkal. déedéet da ngay toppaat de. ngay euh, yan xasida ngay jàng. yaa ma yow yaa ngi ci kuréelu xasida bi. est-ce que doo ma defal benn daaju Serigne Cissé. زري منه هين ذا البهر دينارا من سرى لك حيث انتهت أبدا كما له خدما يهواه أوتارا ولا لئن بياس منهم سريفا وكل ما فيه دور داب أوتارا لغيره ينتهي Iblis fi abadin kafa kurabun gata minan wa akdara jërëjëf euh, mbokk yi nga xam ne yi ñu topp seen émission ëttu ñu amale ko fii ci Bokhatul Moubarak euh, ci Mouré di daara ji nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Basir def ci wetuk Saalum gi Eh, ci ginnaaw Colobane digganteem ak eh, xel koom ñu ngi nag ci poste de santé bi noonu ko sëñ Fallou njaay waxee ak eh, docteur Cissé sëñ Moussa Cissé ñu ngi lay nuyu yow yaa nekk ci poste de santé bi bëggoon nañoo xam seeni taxawaay ak liggéeyu Cheikh Mamadou Bassir fii ci Boukhatoul Moubarak Mouré. bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla bu baax maanaam di dalal baax baax baax yéen waatu waa Lamfal TV si seetsi yi ngeen seetsi bi nemmeeku maanaam hôpital bii di poste santé Touba Mouré ñu koy dakkantalee poste santé sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre nga xam ne ñun daanaka bi fi ñëwee léegi maanaam ab diir fekk fi ndaw si mooy sage-femme di soxna Fatou Loum ñu ànd liggéey liggéey boo liggéey bu boo xam ne booba léegi wax yàlla ñu ànd ak sëñ Bassirou Cheikh Bassirou dara bu ko ci ndax daanaka mooy jëwriñ ci laax si maanaam waa comité bi xam ne ñoom Fallou Ndiaye ñoom Samba Dia wax dëgg yàlla liggéey bi wax dëgg yàlla ñun amu si amu si loo xam ne daanaka beneen loo xam ne lii mas na ko wax loo xam ne lii mas na ko jooytu wala dara ndax lépp loo xam ne loo xam ne njaqare na maanaam sëñ bi saafara na ko waaye dafa yàlla lépp loo xam ne jaaxle nañ ko wala lépp loo xam ne soxla nañ ko sëñ bi teewlu na ci baax a baax ndëkkaloo ci moom def samp ci daara ji samp hôpital bi gars yi di ci di ci liggéey di ci faju di ci dimbal dongo yi parce que ndax fii ndax mook Touba xaw nañoo sori te bu doon dongo bu nekk bopp dem Touba day xaw métti moom ñu samp si hôpital euh, bi nag booba léegi mu bàyyiwu benn ginnaaw lépp loo xam ne war na incha allah mi mi ngi si jàppale baax ci li nga xam ne ñu xamut loolu tamit wax yàlla soit ñu sant baax a baax ndax mboolem xam ne ñu ngi seqal ñu nekk ci dëkk yi fasanti ko parce que bi am na ay dëkk yoo xam ne ñu ginnaaw yu bëri ay dëkk yoo xam ne lu mel ne Daaru Njaay ak ñoom Bustaan ak

kon tey bu ñu suñu moom tànnee indi fii maanaam jàpp na liggéey suñu tubaab bi mooy tax ñu indi fii. Eh, soxna Fatou yow yaakaar naa ne nga ci poste de santé bi bëggoon nañoo xam eh, importance bi nga xam ne poste de santé bi am na ko ci tund wi ak taxawaay bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bassir itam am na ko ci ak ba xam yéen am ngeen benn jafe-jafe wala amu leen. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di rafetlu. tànk yi ngeen def ñëw ci post bi pour xam liggéeyu sëñ Bass fu mu ak jafe-jafe yi ñu am par rapport ak liggéey bi di nuyu sunu mbokk yiñ fi yi fi tombe ndax dañu nekkoon di def réunion nii saa su nekk rek di xool liggéey bi fan la toll fan lañ ci war a àgg comme ni ma ko laajee nag euh, bi ma fi ñëwee xaw na yàgg tuuti bi may ñëw fii euh, biñ ma nee poste bi Euh, dëkku sëñ bas Abdou Khadre la dama ne alhamdulilah parce que comme ni ko Moustapha waxee rek ay murit lañ te buñ sañoon liggéey ci ëttu sëñ Touba liggéeyal njabootam liggéeyal képp koo xamante ne mu ngi aju ci liggéey boobu noonu. Euh, ñu ñëw fii aussi liggéey bi ñu yombal ñu ko ñu fekk fi comité boo xamante ne ci ndigalu sëñ bas lañ doon dox jàppale ñu ci liggéey bi commencé ko ci ñoom sëñ Mamoun ak ñoom falu Ndiaye ak ñëpp dëkk bi tamit euh, du ma ne naqari naa liggéey ndax ay murit lañ du ñàkk nag ay. jafe-jafe yu ndaw yuñ ciy am mais jafe-jafe yooyu yëpp da nga koy muñee rek li nga xamante ne mooy li la neex muy jëmmi sëñ Bas ak euh, jéego yu muy dox ci post bi. parce que tey Colobane mën naa ne sori na mure tuuti yoon bi neexul te nit ñi fuñ toll jamono day laaj ñuy xool seen yaram feebar bu la dabee yenn heures yi. li ngay paas dem ba Colobane wala nga dem ba Gossas wala nga dem ba Touba ñu gin gestu gis seen ginnaaw benn hôpital loolu sant yàlla te bu loolu yëpp amee jëmu sëñ Bass la ñu ko ci sant di ko ci gërëm di sant euh, comité bi nga xamante ne ñoo fi nekk tamit nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale ci liggéey bi di remercier tamit suñuy euh, relais suñuy bàjjanu gox ñoom ñëpp parce que liggéey bi bu àggee peut-être ñun la ñuy gis chaque jour mais ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale di am daal contentement bu rëy ci tànk yi ngeen dox ñëw fii pour xam tamit fan la liggéey bi toll ak ci nag ngeen ñu mën a jàppale mais sëñ Bass moom ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax dongo yi fu ñu feebaree duñ duñ duñ jaaxle seen papa seen yaay nekku fi mais am nañ jëmm joo xamante ne assuré na leen fu bu ñu feebaree ñu mën a dem faju ci hôpital bi leen gën a jege te mu ñu jegee tali bi rek ñëw te li ci war yëpp ci liñ ci mën ñoo ngi koy def leneen lu luñ mënul aussi ñu dem koo jéggaani feneen jërëjëf jërëjëf soxna Fatou Loum euh, macha allah daa mel ne wax ji berti na la waaye nag xam naa ne jaaroon nga ko ci classe bi euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, soxna Ndeye Ngom yow yaay bàjjeenu goxu hôpital bi poste de santé bi bëggoon nañoo xam ñi nga uuf muy waa gox bi bañ taxawaay lañ am ci poste de santé bi ak yéen itam yan taxawaay ngeen ci am ak seen digganteeg Cheikh Mamadou Bassir. bisimilah rahmaani rahiim. maa ngi leen di ñëpp kenn ku ne turam ak santam di leen wax dal leen jàmm di ko sant nag sëñ Basiiru di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ndax li yàgg nañ koo bëgg te amuñu ko woon ay ati at ca gannaaw ñoo ngi dund jafe-jafe yu mette méttee métti fii ci Mouré ndax yeggoon nañ ci ba jigéen ñi dangay ngay gis ku dem jëm Colobane sax nga wasin ci yoon wi dañuy fab xale yi yëpp ci biir yi bañ waar ba egg Colobane te suñu digg Colobane 8 kilomètres la. bala ngaa yegg mën nga am jafe-jafe yu méttee métti ñu di ko jàmbat di ko jàmbat ba sëñ Basiru jàppale nu ci ban am poste de santé bi bi ñu fi nekkee ñi fi ki fi jëkkoon a nekk di docteur Thiam bi fi nekkee Fatou Loum mi fekk ko fi am yar am teggin jàppale askan wi bu baax a baax nag am yërmande ci nit ni bi fi jógee Moustapha Cissé mi ñëw fi moom it ubbi bunt yaatu ci mboolem njaboot gi ñooruwut kenn xale bu ndaw sax mën na ko yendal fii ci mbedd mi. amuñu benn jafe-jafe ndax mënoon nañoo ñëw di jaay ne xaw ma leen damaa ñëw sama liggéey laa garde su ma liggéeyut ku ñëw ku leen nuyu ñu fay la jàpp sa njàmbur duñ wax ak kenn duñ def ak kenn ndax loolu dañ koy gis waaye ñoom indiwuñ fi loolu dañ fee ñëwee ngir ak taalube ak gëmmi Seex Basiru yi nga xam ne moo leen fi indi ñu nit ñoo ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi boobaak léegi itam nag xaj na mënuñoo ñàkk jafe-jafe ndax jafe-jafe moom du ñàkk waaye lépp lu mu ci man doon rek lu ci sëñ Bas yëg mi ngi ciy dox ñu ne loo xam ne mu ngi ci seen gannaaw te mënuñu cee jot suñ ko yëgee bu ñu ci yebalee ñu dem yootu ko ñu ci mën a indi indil leen ko ndax dañ fay nekk ak ñeneen i bàjjani gox ndax soxna jaw mi moo nekk bu moo nekk Daaru Njaay sama morom la bàjjanu gox la kee moo nekk jawe bàjjanu gox la ñii ñëw astu astu sall mee lañ jonn lañ waroon a àndal moom it bàjjanu gox la ci suñ gannaaw lañ nekk ñun ñëpp ñoo bokk hôpital bi di liggéey di leen ñaanal ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi fi liggéey li ñu taxoon a jóg ba ñëw fi ngir sëñ Basiru yàlla bu ci seen yaakaar ñun ñun fi fekk itam yaakaar dañ am ci ñoom ba ànd ak ñoom ci liggéey bi yàlla bu ci suñu yaakaar tas ngeen ñaanal noonu loo xam ne yàlla dafa dimbale na ba li ñu yéene ci bi ñu gis ci lu gën a kawee suñu jort ndax am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax fii dara jombu leen dara jombu fi kenn dem sëñ Basiru ngi fii ñëw di di sëtub Sëriñ Tuuba ñun dara jombu nu lu amagut rek la ñuy wax waaye lu ñàkk moom duñ ko wax ñoo ngi leen di sant di leen gërëm teewaay bi rafet na ñoo ngi ñaan yokkuteel hôpital bi bu baax a baax a baax a baax ndax sant nañ ndax xale yii nga xam ne amuñu man boo demee sama kër sax nga naa daanaka dongo yi fi man la ñuy nekk seen kii di jàngale xam na ci dara man ñëpp sama kër la ñuy nekk yàlla am ko defal ba ñuy wàcc ak ñu wàccut ñëpp ku ñëw sama kër ngay nekk waaye man loolu yàlla ma ko séet dama sante ko yàlla bu baax di leen ñaanal ñoom ñii yàlla na seen liggéey bi yàlla barkeel ko te yàlla yàggal ñu ci sunu kanam ngeen yàgg ñaanal nu nag ñu gën a ànd ak ñoom liggéey te kenn bañ fee joge kenn bañ fee ñaan a jóge ñu liggéeyal sëñ Basiru ci barke sëñ Fallou. ya maaligal mulki ya منجال القواد ارحم جميع الورى يا هادي الرداء يا مالك الملك يا منجال القواد ارحم جميع الورى يا هادي الرداء معوذ ما قدناها والخ القلب من درر بجاه أبدى الإيمان لله خات لجاء jërëjëf mbokk yi topp ci seen télévision Lamp Fall TV ànd ak ñun seen émission Ëttu Murid mu amee fii ci Bokhatul Moubarak Touba Mouré Euh, maa ngi ak sëriñ Modou Mamoun Mbaye sëñ Modou Mamoun Mbaye bokk ci ñi yaroo ci loxoy Cheikh Mamadou Bassir mu Cheikh Abdoul Khadir lu ëpp ci jataay yi bu ngeen séenee Cheikh Mamadou Bassir da ngeen seen mu dend ak moom sëñ Modou Mamoun tey ñoo ngi muré ana yan kaddu nga mën a yëkkati eh, jëme ko ci témoin jëmm ji nga xam ne moom la ñuy wane ay liggéeyam yi nga xamante ni bi moom la yàgg di liggéeyal yoon wi te fii mu sosoon ko ci 2002 ci jamonoy Serigne Saliou di jàngale ak yare ana yan kàddu nga yëkkati. bismillah asalaamaaleykum wa ñoo ngi nii bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi yëpp ak bokki yi ñu bokkal sëñ Abdou Khadir jaar la ci nuyoo bi ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne moo fi topp jataayub Serigne Abdou Khadir ñoo ngi fii nag ci dëkk bu wax Touba Mbouré ci boo jëmee Colobane Saloum Touba Mbouré soriwut xel kom xam naa liñ ciy leeral sax du bari lool waaye ndax jataay bi bett nañu te wax nañu waaye liñ ci ëpp ci liñuy leeral ñun ay taalibe yi Serigne Abdou lañ yaakaaruñ lu dul sëñ Abdou Khadir amuñ lu dul sëñ kon nag sëriñ Abdou Khadir ñun ñàkkuñ ko xëy na ak njabootam ñoo ñàkk sëñ Abdou Khadir waaye ñun ñàkkuñ seen Abdou Khadir ndax ñuy gis ak njaboot gi waxtu wu ne dinañ xool ba dinañ xool sëñ bi di ko am ci ñoom liggéey bii nag Seydou Bassir mu sëriñ Abdou Khadir féetuwoo fii ci toolu toolu Mbuure euh, du lu warte bees ci ñun ndax ku xam sëñ Abdou Khadir xamoon ko ci liggéey ak jaamu yàlla doonoon ku yàgg nekk ci daari bi amoon daari tër bi amoon daari ko xam sëñ Abdou Khadr xam nga ko ci ab liggéey ak tarbiya ko xam sëñ Modou mu sëñ Abdou Khadr nag mi nga xam ne moo doon taw sëñ Abdou Khadr te yaakaar naa ñu ko umpale bariwut ku ko mës a dégg nga aw meloom ak melokaanam ci liggéey ak jaamu yàlla kon nag Seydou Basir mu sëñ Abdou Khadr bu defee lii ñun waruñoo bett ndax ci lii rek la war a xam te ci lii lañ ko nàmpatalee muy liggéey ak jaamu yàlla fan yii ci ginnaaw nag am na liggéey bu mag bu mu doon woote fële ca ci Thiel te turoo tudd Isnu Rabdar soriwut ak tool yi Serigne Cheikh mu sëñ Abdou Khadr kon loolu mu lay firnde la rek Sëriñ Abdou Khadr ak njabootam ku ci ku ci ne yaa ngi cib liggéey ndax foofa it bërëb bu yaatu la boo xam ni ma ngi fa fekk magam ju tedd ja Serigne Cheikh mu Sëriñ Abdou Khadr suñu borom def na it mu am fa xàll wu yaatu boo xam ni lim yéene liggéeyal Sëriñ Abdou Khadr jaaree ko ci Serigne Touba muy buntam ci Sëriñ Abdou Khadr mu fas yéene liggéeyal Sëriñ Abdou Khadr ci Sëriñ Touba suñu borom defal na ko tawfeex joo xam ni mi ngi ci lim man lépp te ak li mënut mi ngi koy jiim ñun ñi nag ñun lii dong moo ñu war ndax suñu waajur ñu amoon kat taalibe Sëñ Abdu Xaadir la woon ci daara tërbiya la newoon daa tërbiya Sëñ Abdu Xaadir bu mu gërëm ko ñu itam ci loxol Sëñ Abdu Xaadir la ñu tegoon mu teg ñu loxol Sëñ Moodu lu ñu am nag ci ab yar wala ay teggin wala ak taalibe Sëñ Moodu Abdu Xaadir moo ci taxawu mu demee woon nag Sëñ Basiiru benn lañ woon ñoom ñaar Sëñ Moodu fonkoon ko lool daa ko digal lu baax lu ne lu mu ko mas a wax it Sëñ Bas jëfandikoo na ko ko amoon pëseef la ci Sëñ Moodu it addiyam lu a liggéey rek Sëñ Moodu la ko yéenee jox ba bi ko noppee gisit mu di ko def Serigne Cheikh kon nag Serigne Bassirou li ñu koy ñaanal mooy mu yàgg fi te wér ndax naal yi mu naal it naal la yoo xam ni jéemalu ko ci boppam ñun ñëpp ci xaj te xajoo na ci ñëpp it te tàllal na loxo ñëpp it nit bu baax lañ xam ci moom jaamukatu yàlla la ab liggéeykat la nit ku yaat la ku ubbi ko ku am yërmande nit la ku am gerte la ku jàmbare la it nag ci day it ku fonk sëñ Tuubaa la te gëm ko liggéey bi mu liggéey sëñ Tuubaa yi amu ci lenn lu mu ciy xalaat du dul am ci yàqin bu wóor ne sëñ Tuubaa dana ko fayal boppam te liggéey bi muy liggéey yéemali ko ci boppam ci ñëpp la ko yaatal sëñ Basiiru kër yëpp xam nañ ne tàllal nañ loxo loxo ñëpp ñu ànd liggéeyal sëñ Tuubaa lii mu nekk nit xëy na day doog a feeñ ci nit ñi waaye nag yàgg na ci bi mu sanc fi yàgg na yàgg na mënu su xeyaar yàgg na kon nag naka jekk da daan liggéey di bay di jàngale di tarbiya boole ko ne liggéey bi ko sëñ Tuubaa dénk nag mu war koo taxawu loolu aju ci mbirum sëñ Tuubaa liggéey bi daa fekkoon mu newoon ci liggéey kon liggéey bi da koo yokk waaye naka jekk doon na liggéey ku ko xam ci liggéey nga ko xam ak jaam yàlla ak maandu ak jàmbure ak tabe ci alalam tabe ci darajaam ñu bokkal sëñ Tuubaa yaakaar naa ne néewaane ñu ko ci ŋàññi teel bi it néewaane ñu koy ŋàññi xëy na nag la mu daan wax rek nit ki boo ko xamut mën nga ko xalaatal lu ne mm-hmm. waaye bu ngeen jaxasoo nga xam ko doo xalaat ci moom lu du ak yu nga gis ci moom xam naa daal seet seet seetlu naa ci moom leen it jamono lu mu xat xat xat ak lu mu xatadi xatadi sëñ Basiru ñeenti waxtu ci fajar moom dana ko fekk mu ne ci ëttam ñeenti waxtu moom dana ko fekk ci xamul lii biddanti sax xamu ko boo gisee nii ci biir nit ñi nag mën ngaa jàpp ne deful dara waaye suñu bas amuti nelaw jaamu katab yàlla la kuy sàmmonte la ku xam boppam la it nag ku xam fi mu jëm la it nga xam ne ñi mu koy àndal te ñi mu àndal ñëpp nag ci kër yëpp pëseef la leen gisee ci ñoom moo tax mu ànd ak ñoom liggéey bi képp koo gis mu jëflante moom rek daa ko natt ba xam pëseefam mu doog ànd ak moom jëflante moom ndax moom du dox ci lu du pëseef te xam xam ku yeewu la ci àddina yi nag xam na bu baax li ko war xam na li ko wëruti nag kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawu ko sàmm ko barkeelal ab liggéeyam bu fu mu bëgg àgg mu àgg fa ak njaboot Sëñ Abdou Khadre gépp ñoo ngi ñaanal njaboot Sëñ Abdou Khadre gépp doo dalee ci Sëñ ba ci Sëñ boo tuddee Sëñ Cheikh tudd ñëpp boo tuddee Sëñ Basiru tudd nga ñëpp boo tuddee soxna moom yi Daaru Salaam tudd nga ñoom soxna Diop ñoom soxna Fatou Diop ñoom ñëpp ñu ngi maase di ñaanal suñu baax suñu ko te muusal ko te aar ko ab liggéeyam rafet na lool maa ngi sant suñu Fallou Gala Sëriñ bi moom itam ndax it moom itam ba ma ba léegi ci lu baax rek lay xëy ak tey gis naa ne it lépp mu wax jëm ci yoon wi moom daa bokk ñuy defar te man ko lool te ñëpp safoo ko it nag ndax dafa dëgg xam na boppam te Daaru Salaam la dëkk rek na démb tey doog a ñëw lépp lu muy def suñu Tuubaa tax mu di ko def yaatal gi mu yaatal jubluwuñ ci ni wane ne sëñ Mbass day wane ay ay moomeelam wala dara déedéet sëñ Bass day fàttaliwaat tali bi yi ne leen sëñ Tuubaa liggéey la ñu sant ak jaamu yàlla di ko fàttaliku ñi mu ko sañ a fàttali ci ay nawleem ak i moromam wane ne dañu war a liggéey war a war a jaamu ji yàlla eh, ndax mbirum sëñ Tuubaa moom amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la sëñ Tuubaa damay wax ne njabootam gi képp koo xam da nga toll ci fukkaat lay mandargalu fukkaat tolluwaay ya moom la lay jox boo continué di dem mu gën naa yokkal lim la dénk kon nag lii lépp ndénkaan la sëñ ba daa soññ rek ak di fàttali rek waaye du caagi ne wane boppam déedéet wanewul boppam ba sëñ bi xaar doone bàyyam rek boobu la amoon am kon lii ab liggéey la boo xam di koo xam ne yii li fi nga sang njaboot ak a foo mën a nekk soññee waatal ne liggéey jaam yàlla moo ñu fi bàyyi suñ kam laay kattan kon nag lii laa amoon ci lu may leeral maa ngi tuub ci kàddu yi lu ci dëng rek man la waaye sama parce que ak maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëñ Modou Mamoun Mbaye jërëjëf euh, suñu bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu topp seen télévision Lamfal TV Eh, seen émission ëttu murit ñu amale ko fii ci Buqaatul Mubaarak Touba Mouré ñu ràññ ci jataay yi nag ñi nga xamante ne bii moo di njabootu Serigne Touba gi eh, Cheikh Mahamadoul Bassir moom Serigne Modou Abdou Khadir ràññi nañ ko fee Serigne Mbacke Diop moom Serigne Njekk Diop Serigne Moustapha Boussa Ñaan moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor eh, Serigne Cheikh Fall ak ñi nga xam ne ñoom ñu ko seqal ñëpp di jaajëfal baax sunu caméraman Serigne Mbacke Sey di jaajëfal bokk yi nga xamante ne bi Serigne Mbacke Serigne Fallou Galas si la nekk ci micro bi Alaaji Fallou si la nekk ci wàllu machine bi ñu leen di ñaanal jàmm di ñaanal ci réew mi jàmm yal yàlla def tawféex ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ajabani xayru baaxin fihi xataba kulli wara xabima li xad axtaba lewajiba xilma al قد ألم بي لنا فرغته وهو كاخ والأمل ما خاب برد الذي ليس ينعني ولي بدالي ولي يخلده من كاب سخاب إلى سوى ينيدا تنوى بما معهم وبيزا في الإله دهر الباب قلوب من لم يهي بني على وجل ولا يلاقنا ما رام ولا الباب ينغاد لي كل ما راما كرام منن ولا أراق بما لقد أختاب ينخاد لي كل ما رام كرام منن ولا أراق بما لقد أختاب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 bismillahi finin addaar yaa law safi baqa abihim li fika yaa law yaa man lahul amru yaa man